bopp loolu mooy sa sakk tey ak mm. ëllëg pour la postérité pour sa ay doom mm. pour suba nettali ba bàyyi leen mu sedd reculer démb gis nañu euh, gannaaw Sabasy fay euh, bi mu euh, nekkale Ousmane Sonko fële ca Ziguinchor gis nañu bi mu joxee verdict bi ni ko sénégalais yi ajee ba mu kawe mm. waaye nag keneen di Ousmane Racine Thion moom it démb daal xam na ni sax mën nañu ne mi ngi door a gën a siiw daal fexe nañ ba séeréer doon fi buur fexe nañ ba séeréer waa séeréer yi amuñu caaxaan de sama sama jaam wax nañ dëgg hmm? c'est-à-dire euh, hommage ni ñu koy euh, rendre hommage di ko comme si que euh, justice musul am ci am ni foofu la problème bi nekk Fatima hmm. maanaam da ngay appliquer mu doon exploit maanaam nit ñi hmm. que appliquer nañ ci Sénégal day mel ni li fi newoon nag ak l'application du droit au Sénégal est devenue une denrée rare comme diamant comme pétrole comme or c'est-à-dire appliquer droit ci réew mi moom moo mujj doon taw bu wóor ñu koy wëree fu ne pour appliquer droit te pourtant loolu tax ñu leen di fay te ñun ñoo leen di fay c'est l'argent du contribuable sénégalais qui paye nos magistrats ñu war a rendre euh, la justice au nom de ce peuple là Macky da leen fi fekk da leen fi bàyyi mhm. amul kenn ku ñu redevable keneen ku dul le peuple sénégalais moo tax ma ne Ousmane Sonko ba mu gañee procès yi dafa yàgg yëpp nag. yi ñëw ak yi ñëwagul. yow weesu ya ca kanam yëpp la Ousmane Sonko gañee ni mu ko gañee mooy le peuple sénégalais au nom de kii la justice est rendue. peuple mm-hmm. boobu moom moo ko wan clairement. Mm-hmm. que ni ñun gisuñu benn daan ci yow dañ ñu bëggoon a présenter Ousmane Sonko comme le diable comme un terroriste. Mm-hmm. comme un rebelle. non non bëggoon a présenter. mais loolu loolu la mais mais mais c'est une image erronée. très erronée de Ousmane Sonko lañ ñu bëggoon a présenté diaboliser nañ ko ci fànn bu nekk dara jàllul. méngoowul ba barki démb boo Ndiaye ba ñu wax ay waxu foowu Qatar booy dañoo xëy def leen challenge ci Qatar. kolo man sax def naa ci waaw. pour wan leen ne léegi seeni manipulation jeex na nekkatuñu ci eeru euh, nga xam ne benn télé moo fi amoon benn rajo El Hadj Bara Diouf ak euh, euh, la RTS. Mhm. El Hadj Bara Diouf du nga xamante ne bu nga manipulation de masse yi mënoon na demee léegi nekkatuñu ci jamono boobu ñoom nañ xam loolu ñuy toog ci télé yi di layam layameeg tëbaka dal nañu xam ne naxuñu sax bébé yuñ bàyyi seen kër naxuñu kenn mm. le peuple est éveillé et boobu noonu li ko sabab bokk na ci doxalinu Ousmane Sonko kon nañ ko nangul ndax boobu bokk na ci li nga xamante ne mu ngi doxal réew mi te jëlagul réew mi Ousmane Sonko. Hmm. dafa commencé defar réew mi te yorewul réew mi ci jikko. ci yeete ci yeete. Hmm. ci courage. ci persévérance tey jii nii tey jii nii ñëpp bëgg nañu. Hmm. muy yow muy sa doom nga ne def naa 15 ans ci inspection des impôts dërëm bu ma sàcc mënoo leen koo génne. c'est-à-dire fexe na ba. yooyu noonu. mujj doon challenge parce que xamuñu ko bu ñu gisee. vidéo benn vidéo bu Razali. san na ay fonctionnaires milliardaires. loolu choqué wul woon kenn. parce que dañ ko jàppoon comme une normalité. alors bi Ousmane Sonko génnee ne dërëm kenn du ko fekk ci man. Mhm. def déclaration de patrimoine am teg. c'est-à-dire yàlla daf ko may noo xamante ne nag bu ndekkee bañ a dugub bañ a dugub jaar. Hmm. bu solee koppati koppati jaar boo ko tuddee Qatar sax Qatar yi euh, gis ci seen bopp. Mm. comme que nag moom dem na ba doon royukaay. Mm. ci heureusement mu doon koo xamante ne li muy génne ci acte lu positif la. Mm-hmm. kon donc royukaay bi mu doon dañ koy roy sax ci njub gi. nañ ci góorgóorlu di ko roy ci mbaax mi. Mm-hmm. di ko roy ci jovial. waa tey jii ni nag nga bëgg a ñëw rek parce que am na. Mm-hmm. ay médias yoo xamante ne dañoo spécialisé wu ci manipulation de masse. ci euh, diabolisation ci désinformation fay nañoo ku ne experts yu ñu jëlee fu ne ci mm-hmm. àdduna teewut la manipulation la tentative de diabolisation de Ousmane Sonko jàllul jàllul su ko prétexte jàllul ci mm-hmm. benn anam te lu nekk jaraloon na leen ko nag nga doon gis ay euh, journaux mm-hmm. ligne éditoriale bi yëpp tilimal deru Ousmane Sonko kese la ngay gis ay chroniqueurs ay acteurs politiques ay journalistes lu nekk wax nañ ko teg ko ci deram bi pour yàq ko pour moins que ça ay ay acteurs politiques pour moins que ça déggatoo seen tour ñu xewi carrément fay carrément mm. yaa ngi fàttaliku mbirum ñoom Diom Bass Diaw mm. c'est-à-dire ñooñu ana ñooti fay carrément Ousmane Sonko a résisté à cette pression la résisté wul rek ci euh, mbirum Adji Sarr mais tout les tentatives de diabolisation il a résisté et que li tax jàllul c'est à peu près ce que le Rwandais là Kagame mhm. a réussi ci peuple am suba ba jant soo da ngay dégg RFI France 24 le mhm. dictateur nangam mais loolu noonu jàllul ci boppu Rwandais yi parce que xam nañ njëriñ bi mu leen amal mhm. xeetu diabolisation bu nekk dañ koy teg ci kawam loolu moom mooy le mérite d'un acteur politique le mérite d'un acteur politique mm. du rek probité mais la facilité euh, qu'il a à le transmettre ci ñi nga xamante ne ñoo ànd ak moom loolu moom moo waral une révolution loolu moom mooy def pérennité am ak yërmande Pa Moussa yërmande euh, mm. Sénégal dafa soxla président bu am yërmande waa waa waa léegi nag ñoom ki am yërmande ki ñoom mm. terroriste lañ ko bëgg a euh, tuuma léegi nag tey jii nii euh, le succès d'une révolution mhm. mooy nga bañ koo calquer ci nit damay faral di wax ne euh, la révolution burkinabé lii tax mu am benn benn frein mhm. mooy ne dañ ko calqué woon ci Thomas Sankara bi Thomas Sankara euh, décédé rek mhm. révolution bi daa fay il a fallu des années de Blaise Compaoré pour ñu mën a gisaat l'ombre de Thomas Sankara en la personne du capitaine Traoré. Traoré. donc tey jii nii nag Ousmane ko li mu réussir mooy. Mhm. man faagaagal leen ma lu leen neexee. la révolution va continuer. d'accord la personne de Diomaye. Mhm. Cheikh Tidiane Dièye. Euh, Guy Marius Sagna ainsi de suite mhm. c'est-à-dire esprit yi xel yi taal na ko. gars yi nag dañ ko doon jiiñ taalub réew. ndekete xamuñ ne xel yi la taal. ba képp ku taal réew ñu ne la nuus taxawal yow mii la maanaam taal yooyu fi amoon yii ne hmm. dañ ko ko doon jéem a jiiñ waaw xeex kenn xeexul kenn xeexul non non non ba ne hmm. woon kaale ne ko non non un mois moom moo ci des dañ koy lijjantee noonu léegi nag la fi xewoon bële hmm. taal yeeg toj yi yow loo ñu organiser complot yéen a ko fi indi ko c'est-à-dire dañuy uh-huh. pour man taal toj yooyu du du du du acte de patriotisme du militantisme. parce que sa bopp nga yàqal sa réew nga yàq léegi nag pour man loolu ay bandi ñoo ci juux. Mm. lan ñoo juux ci lan ñoo juux ci complot bu ñu ñoom ñu organiser. kon kay bu ñuy seet responsable ci mm. loolu noonu dañ ko seet seen biir. nañu leeral aussi euh, coowal nervi yi nga xam ne nag jotoon nañ leen gis. ñi yoroon pick up yu weex yi. kenn euh, nekk ci nañ ñu ci jàppale rek. parce que tamit. Euh, mënatuñ sax am nervi. nervi yi dañoo bàyyi. fayal weer ñaar nervi du la ko xaalisam. ah waaw non c'est-à-dire nervi yi sax dañoo mujj yeewu. de presse nervi hmm. ci seen bopp dañoo mujj yeewu ànd ak waa ji. ñu ngoog Pape Moussa. waa ji dafa yéeme de. nañu tëj prison lañ ko yóbbu. Hmm. dégg naa moom ñëpp prisonnier pénitentiaire ñëpp ànd ak moom mu toll nii. yow bul indi administration pénitentiaire problème. xanaa du ay citoyen ah. ñu ngi liggéey dañu leen dañu leen dàq wala ñu kii leen de. Ah. réew mi fi mu ne mooy problème bi. pourquoi ku ànd ak Sonko dañ la war a dàq fi noonu la game bi moo changé. Pa ah, Moussa ñu dem game boobu nag mooy jeex le 25 février 2024. mi ngoog ci leneen ñu ñu euh, dem rek balaa waxtu duñu duñu xoj. Hmm. Euh, maître Moussa Diop. Euh,